mbokk yi naa leen yéen ñëpp ci seen tur ak seen sant di gërëm di félicité waa ànd sàmm jikko yi nooteel bu ñuy noot Afrique ak africain yi naam ci wàllu koppar la naam ci wàllu présence militaire étrangère la naam ci wàllu kàllaamay français bi ñuy jëfandikoo la naam ci wàllu FMI ak Banque mondiale bi ñuy wax naka la ñu doxalee suñu budget waaye nooteel bi itam ci wàllu culture ci wàllu cosaan ak aada ci wàllu valeur donc homosexualité ak agenda pro pro LGBT foog ñu jàpp ne ci nooteel bi la bokk te ñun waruñu ko nangu ni ñuy waxee français fa dégage ni ñuy waxee armée étrangère dégage ni ñuy waxee FMI banque mondiale go home noonu la ñuy waxee agenda pro LGBT dégage agenda pro LGBT go dama ne am na ñu naan lii jaru ko ndaxte yoonu Sénégal moo sip mbiru góor jigéen waaye dama ne seen mobilisation bi jar na ko lu tax jar na ko koo xam ne dafa waxoon ne du musa fal rakam mu fal ko koo xam ne dafa waxoon ne lay def mu def sept ans koo xam ne dafa waxoon ne du def troisième mandat mu naan tey nii wii nii non buñ ko seetaanee suba lim ñuy wax mooy waxul nii wii waxul nii noo ci wàllu góor jigéen te foofu waruñu fa egg ak moom buñ ko seetaanee ëllëg dinañu wax nii wii nii non li may ñaan président Macky Sall ak gouvernement bi mooy dafa waxoon Barack Obama ne ko askanu Sénégal pare wuñu pour góor jigéen waaye dafa mel ni ci tànk yi ñu nekk mooy fexe ba ñun ñu pare ñun ñu pare mooy lan boo seetaanee film nga gis góor ak góor di fóonante boo seetaanee film nga gis jigéen ak jigéen di fóonante boo taalee sa télé nga gis góor ak góor di sëy loolu nag moo war a jeex noonu la ñuy suñu ndaw yi di préparer suñu ay doom pour jàpp ne góor jigéen dara nekku ci lesbienne dara nekku ci moo tax ñu war a jóg ànd xeex ne góor jigéen dégage agenda pro LGBT dégage jërëjëf jërëjëf